asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm faat bakken yi ñuy nemmeeku fan yii yëpp ñu ñuy sàkku ba pare daal di leen faat wala boog ñu ñuy sàcc te kenn xamul fu ñu leen di yóbbu loolu yëpp nag nekk ay mbir yoo xam ne daal ñoo ngi koy faral di nemmeeku fi ci mim réew ji nag autolikaay bi di Vox Populi ma ngay ñëwaat nag ci kàddu yi nga xam ne ki di Youssou Mbargane Guissé nekk chercheur anthropologue et sociologue moom moo ci amal ab gëstu goo xam ne ma ngay liñatu lan moo waral li ni mel mu daal di tàmbale di xam ne ne ba Sénégal moom boppam la ñu tàmbale nag di gis ne xàjjoloo daal am na ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci réewum taax ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkk ci àll ba ba pare léegi ñëpp nag koppar la ñuy nekk di wër rax ci dolli jàmm ji nga xam ne nag moom moo amoon eh, fii ci biir réew mi léegi de am na lu koy tàmbale di gàllankoor loolu nag moom moo tax eh, ba kii di Youssou Mbargane Guissé te mu nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM daal di xamle ne nag jot na ngir ñu jël ay matuwaay ngir fexe nag ba yenn ci fitna yi nga xam ne ñoo ngi koy nemmeeku fii ci biir réew mi daal ñu daal di koy faagaagal ci ni mu gën a gaawee ñu daal di jukki jëmale ko nag ci rapport rapport Cour des comptes yu atum 2015 2016 2017 tey ji colikaay bii di Sud Quotidien ngi xamal ne bëri nag ay kàngaam yu nekk nag ci bopp ay kuréel ñoom de rapport boobu nag daal dina leen joxoñ baaraamu tuuma colikaay bii di Sud Quotidien di ci euh, njëkkee nag CICES mi nga xam ne nag kii di Cheikh Ndiaye ma moo ko jiite ñoom de am na yenn ci ay doxalin yoo xam ne daal def na ko ci bopp CICES daal jaarul yoon colikaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat tamit ca port autonome de Dakar keroog am na yenn ci ay mbuxum yam fa def yuñ fa nemmeeku autolikaay bi di enquête tamit di ñëwaat ci mbirum Moustapha Diop moom mi nga xam ne rek ba mu nekkee ci biir ministère am ci atum 2015 dafa lankoon carré ne kuréel bi di FNPE te mu nekk ci biir ministère am daal kenn du ko liñatu loolu sax moom moo tax ba nag mu yëkkati woon ay kàddu yu mel ni xamee daal di koy teg ci ndoddu magistrat yi nga xam ne daal dañoo ñëwoon nag def seen liggéey ba léegi ci biir autolikaay bi di enquête su naataango yi dañoo xamal ne kii nga xam ne it moom mooy Cheikh Omar Anne moom it bokk na ci ñi nga xam ne nag cour des comptes daf ko joxoñ baaraamu tuuma moom moomu sax di Cheikh Omar Anne ba mu jiitee kuréel bii di COUD lu ko neex la fa def loolu sax la Pape Alé Niang daal di firndeel nag ci ab livre boo xam ne daf koo fësal tuddee ko scandale au cœur la République le dossier du COUD ci biir livre boobu Pape Alé Niang di xamle ne waa OFNAC ginnaaw liggéey bu am solo bi nga xam ne nag def nañu ko ci doxalinu kuréel liggéeykaay bii di COUD gis nañu nag ne am na njuuj njaaj yu métti yoo xam ne nag ki di Cheikh Omar Anne moo ngi ko fa doon amal moom moom sax di daal di ñu yëgal ni moom dafa fas yéene nag yóbbu ci kanamu yoon ki nga xam ne nag moom mooy euh, li euh, nga xam ne de euh, moom mooy ca AGR foofu it daal dinañuy nemmeeku ne bëri ay marché yu bëri yoo xam ne nag ñoo ngi ko fa doon amal te dara jaaru ci yoon fii nga xam ne nag moom mooy ca office des forages ruraux du Ofor keroog ba ko lancé na Gagny Sakho jiite suñu naataango yi nag ñu ngi ñuy xamal ne moom it am na daal yenn ci ay mbir yoo xam ne ma koy def ba mu nekkee ca bopp kuréel boobu léegi nag rapport yooyu yëpp nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa cour des comptes jébal nañu ko njiitu réew mi colikaay bii di di laajte yooyu di mujjee te lañ gis moom mooy nag di joxoñ nañu baaraamu tuuma ay kàngaam ñoo xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi ndax sax rapport yooyu moom dina am ëllëg colikaay bii di tribune amul ci benn yaakaar ndaxte ma ngay xam leen ne laata rapport yooyu di ñëw am na yeneen rapport yoo xam ne jot nañ ko fee amal te nag mujjewul fenn ci wàllu rapport bi nga xam ne nag waa of nag dañ ko def ci kudd sax dañ ciy des ndaxte yëglekaay euh, bii di laas tey jii di ñëwaat ay kàddu yoo xam ne Mohamed Boun Abdallah Dionne moom moo ko ci daal di fësal ndaxte moom daal di ne xamle ne ci wàllu rapport boobu keroog ba ñu koy amal foofu nga xam ne moom mooy te kudd benn tubaab di la ñu ko dénk te moom nag ba mu defee liggéey bi ba pare euh, dafa daal di tekki ndombal tànk ya ñu ko joxoon dafa euh, démissionné rax ci dolli ci wàllu rapport boobu ñoom gis nañu nag ne tontu bi nga xam ne moom la ñu waroon jox ki jiite woon kudd ñoom dañu ko jël ba pare fësaluñ ko moom moom nga xam ne nag moom mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne daal gis kon ne am na lu bëri loo xam ne nag kenn waxu ko ci wàll gi ni mel of nag moomu sax autolikay bi di libération di ñu xamal ne ñoom seen enquête bañ doon def ci affaire Petrotim daal dinañuy raxas ba mu set wecc deru ki nga xam ne nag moom mooy Aliou Sall ba pare nag laaj ñu amal ay poursuite jëmale ko nag ci ki nga xam ne de euh, moom mooy euh, Karim Wade ci biir autolikay bi di 24 heures Oumar Faye te mu jiite mouvement leeral askan wi di gis ne nañu yoree nag réew mi daal jaarul yoon maanaam daal lépp loo xam ne dafa jublu ci moomeelu réew mi dañu loo sax moom moo tax ba Oumar Faye di gis nag ne war nañoo indi ay coppite ci ñi nga xam ne rek la ñu teg ci boppu réew mi wax nag ci ñaareelu bésub setetal bi nga xam ne rek ñu ngi ko doon amal ci samedi bi ñu jógee julikaay bi di la soleil di ñu xamal ne bëri na ay gox yu nekk nag fii ci biir Sénégal yoo xam ne ñu ngi doon amal nag ñaareelu bësub setetal googu li ni mel la ñu nemmeeku euh, fii ci biir dakaar fa li nga xam ne tamit moom mooy ca Tëngéej ca Mbuur ca maatam ca Kaolack Fatick Touba Mbacké Tambacounda Kaffrine ak tamit Bignona jeexale ko ak yéenekaay bii di sunu lamb di ñëwaat nag euh, ci écurie bu bees tàq bi nga xam ne nag kii di Papa Sow moom moo ko daal di taxawal suñu naataangoo yu lamb di gis nag ne Papa Sow moom daal di nay fayu ci kaw waa Fass écurie boobu nag mi ngi tudd Jàmbaar Wrestling Academy Père Ba moom la ñu daal di tab mu nekk koy jiite Cheikh Ndiaye moom mooy manager général bi suñu naataangoo yi di ñu xamal ne ñuy tàggat nag mbër yi nar a nekk ci biir euh, écurie boobu ñoom ñooy yi a fës ci ñu leen di ñaanal njeexteelu bés ak jàmm